ndeysaan mbokki internet yi ñu leen siyaare bu baax a baax a baax ndeysaan mi ngi noonu te ñu ngi naan la ñu ngi stade Ngalandou Diouf journée Tawfekh Production la waaye nee naa la yéen nga am huitième combat ci biir géew di dox ci diggante ak yaa salaam ak booy mbocc yaa moo féete ndeyjoor ba ngeen Boy Mbocc moo nekk ndeysaan waaw waaw huitième combat waa ngi noonu boobu mooy yaa salaam ak booy ñu ngi noonu di leetoo ndeysaan yaa salaam saani na léegi boobu mooy comme huitième combat bi ndeysaan attention doon na jël na ko yaa salaam doon na jël ko waaye nee naa song bu baax la songoon. song bu baax la songoon moom yaa salaam. at mi ngi naa leen bëre leen. ndeysaan diggante yaa salaam la. ak booy ma nee naa la ñu ngi fii ci stade nekk huitième combat bi. attention yaa salaam takk na ko zongale na mu may nee naa ko ki ngay zongale néewul doole waaye nee naa la nit di nuyu mbokk internet yi suñu xalaat TV yëpp ndeysaan di leen wax ngeen di abonné bu baax ci chaîne bi attention di laal kër mais nee naa tey ñu ngi tëngeej ndeysaan digganteeg yaa salaam ngeen am ci biir géew bi boy boy mbocc arbitre bi atte lu xew yo leen waat ci bi arbitre bi na ndeysaan génnaat seen diggante diggante Boy Mbocc ak uh, Yaa Salaam Yaa Salaam nga ngeen jàkkaar lool Yaa Saane na léegi cokkaas ndeysaan dinaa leen ngay am en direct bu baax ci chaîne te émi vidéo di ko partagé ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi booy sànni na léegi benn coup attention ña ngay xeex da yaa salaam jël na ko jël daan na ko laa yaa salaam waaye lugal ba xale yaa salaam a noonu yaa salaam asalaam gàddu na saako ba ndeysaan waaye ba pare na nga saako ba at bi baa ngi woote ndeysaan nekkoon huitième combat bi ndeysaan ci biir géew bi di dox sa diggante yaa salaam ak booy mboj am ndam ndeysaan boobu nekkoon huitième combat bi te nee naa la ñu ngi Sadou Ngalandou Diouf nee la daan lamb boo daanoo da ngay wét da ngay rus ndeysaan waaye boo daanoo rus ku daanoo rus ndeysaan ndeysaan Modou Baye Fall a woote fecc arène nationale diggante ànd ak Konda ak Boy Sèye doom Kër Massar bi eh, eh. waaye diggante ndeysaan mbokk internet yaa ngi noonu ñu rek saa su nekk ndeysaan ci bi ngeen di topp seen seen suñu xalaat TV oh, laamu noonu la ndeysaan ndeysaan dafa leer nee naa la ñu ngi tey nee naa la ñu ngi stade Ngalandou nee naa la Tëngéej sedd na ñu ngi bëgg a dee ndeysaan nee naa la ñu ngi waajal combat spécial bi di dox ci diggante usine ikiri doom gëm sa bopp ndeysaan wara dende abama bu ngapparu nekk ikiri Omar Ndaw Gueye waaye nee naa grand combat bi yàgg na am ci diggante amul frein bu Kër Mbaye Fall ak Gamaji Sané ikiri lebu yëmbal yaa tout waaye yëmbal yaa tout boobu àndut waaye da ngeen di man nee naa la waa Buul laay nuyu waaw waaw am naa ci plein nuyu waa Buul waaw waaw Buul ko nuyu ñu ñëpp xam nañ ko muy kan sama séeri Mariam loolu dafa leer. Sénégal Info. ak borom pochette borom pochette bi. ak borom brèche bi. non ni ngay waxee dama koy bëgg a mën waaye mënu ma kaa mën. ma ne la yaa ngi biir Sénégal Info ak borom pochette bi ak borom brèche bi xam nga ku may nuyu. Mariama sama chérie ndeysaan Maria ba waa ñu ngi koy nuyu nee naa kook sama xaritu xol la ba may xamante ak moom dara xewul mu jàpp rek te woo bàyyi te musul découragé nee naa la jabar fa nga jàpp foofu la de waaye fa nga jàpp sama góor tamit foofu la dafa leer <laughs> ndeysaan mi ngi noonu te nee naa la tey ñu ngi tëngéej ngeen ngay ànd ak ndeysaan nee naa la fu ñu làmb yabal rek ñu dem fa waaye ne kenn du wax te ngay de. laa ilaaha illallah. waaye lu ko mën loolu. noonu. ñoo ngi fii biir Ngalandou Diouf ndeysaan ndeysaan nee naa la ñu ngi stade Ngalandou Diouf ñu ngi doon di waajal bi neuvième combat bi di combat social bi di dox ci usine technique ak Obama Ngaparou ndeysaan waaw waaw suñ suñ papa mbe père moom kenn du moom <laughs> nee naa ñaari mbër yaa ci biir géew bi mbay ti da ngi noonu ndeysaan waaw waaw borom la 24 Seydina nee naa drapeau bi suñu drapeau la waa presse bi yëpp la Ousseyn nag ndeysaan ku yàgg Ousseyn euh, sargal la euh, presse bi ndeysaan bii moom da cee raw ndax Seydina kenn la ci affaire yi moom ni ngi koy ñaanal rek ndeysaan journée bi ndeysaan xam na réussir moom Seydina moom loolu la mel. waaw. Seydina loolu la mel. Seydina na ñëpp moom bu sëñoo ñëpp ay liggéey. xol bi moo rafet. loolu dëgg la ndeysaan des fois day dugg sax bu duggee xool gisul kenn da lay woo laaj la fa nga nekk. loolu yàlla na yaamam yàgg ndeysaan di koy ñaanal rek drapeau bi ndeysaan

diggante usine technique ak bu Ngaparo présenté drapeau spécial bi waaye ñoo ngi tëngëj usine technique ngi noonu yëkkati loxoom nee na jeex na moom usine technique nee na affaire jeex na waaw ah, abama bu ngaparo ngi noonu boobay combat social bi. ñu noonu di leen présenté. usine technique gi noonu moom ngeen di jàkkaarloo. ñu noonu am sangor bu mu dem. jàkkaarloo adversaire mu ngi noonu suñ ngeen jàkkaarloo ndeysaan ndeysaan Ameth a ngi noonu yi man lay topp man waa Tëngéej si xam nga ni waa Tëngéej dañoo xam teraanga ndeysaan Ameth ndaanaan la ndeysaan yàlla jaamam yàgg moom Ameth non wax dëgg ji dañoo doy waar. waaye de. nee naa nekk noonu di dox si diggante Obama ak usine technique. waaye dafa mel ni abi bi sifle na léegi mi ngi doon waaye sifle ndeysaan abi bi sifle na giiri seen diggante diggante usine technique ak Obama bu nga paru usine technique sànni na léegi benn góos cokkaas usine technique cokkaas sànni na waaye nga fay na Obama laay laay la laaw boobee combat spécial bi attention jàppante nañ ñoom ñaar waaye bàyyante waat nañ usine technique usine technique ndeysaan attention usine technique awa ma bu gabaru al bi mi ne lu xew daa dem ardo usine technique dem na ardo ardo bi gaaw ma nga ardo moom usine technique usine technique yooyu noonu Ardo waa lii daa mel parrain bi la nag moo ñëw noonu parrain grand combat bi moo ànd ful bu doy waar. mi ngi noonu Ardo ndeysaan mi ngi noonu usine technique dem ardo mooy combat spécial bi waaye abama bu ngaparo gi noonu ci biir géew bi moom ndeysaan waaye usine technique ngi noonu ngeen seen arbitre bi di ko faj ci médecin bi di ko faj nga ardo ndeysaan waaye aba maa ngi noonu ngeen bu waxal ak staffam mi ngi noonu ndeysaan arroo ngi noonu di ko xool waaye nee naa la tënge sedd na laay laay la laaw Gora ngi noonu ndeysaan di taf usine technique daa jël coup coup bi mu jël moo ko yóbbu ardo waaye mi ngi doon ndeysaan parewaat na mi ngi doon di delluwaat ci biir géew bi moom usine technique daa laa ma ci jeexu ko day soog a commencé mi ngi noonu arbi baa ngi waaj a siflewaat ndeysaan laajaat ay zizem ba xam pare nañ sifflé na ndeysaan diggante diggante usine technique aboma daw na jël ko yëlante ñoom ñaar jàppante nañ robote nañ diggante usine technique ak aboma moom xew usine technique aboma Usine Technique awa ma mo ngemo ngemo lu moom leen won lool Usine Technique attention luy xew attention awa ma songale na waaye te <laughs> Usine Technique nee mooy Usine Technique waaye tey nga mi ngi koy ware ndax jekku nañ ci Usine Technique lu xewati Habib bi atawaan na waa taf bee teppeeku taf bee teppeeku ndeysaan dërëj ji dërëj ji wal wax daal ndeysaan neexut muy noonu delluwaat arro moom Usine Technique yaram yay tàng bu sa yaram tàngee dërëj lay bu commencé génn du arrêté arro nee na ko fekk fii waat moom ndeysaan mi ngi noonu usine technique usine technique ndeysaan mi ngi noonu yaram bee tàng nangu to toog toogal ci suuf ndeysaan bu ndeysaan mi ngi noonu toog moom usine technique daa jël ku lu nar a xew amee na at bi nee na amul bëriwaat jox nañ ko victoire bi ndeysaan jox nañ ko victoire am moom Obama ndeysaan Obama jox nañ ko victoire ndeysaan ci kaw usine technique oh ndeysaan làmb ji nii la yóbbu na ko Ardo waaye Ardo nee na ko mënoo bëriwaat ndeysaan usine technique xolam neexul ndeysaan mu ngi jooy fa mu toog ndeysaan waaye làmb la lamb la ndeysaan oh ndeysaan lamb la nii la jeexee ndeysaan ku nekk bëre nga daan sa waaye Obama ngi noonu yëkkati ay supporter am moom Obama bu mu am ndam ndeysaan ci kaw usine technique booba nekkoon combat spécial bi ndeysaan nee naa tey ñu ngi fii ci Tëngéej stade Ngalandou Diouf nee naa la Ngalandou Diouf ñu miin ci lamb lamb woo rek ñu dem. non dafa mënatul bëre daa naa ci ndeysaan ba léegi mi ngi noonu ñuy faj. jox nañu victoire ndeysaan oh li rafet na ndeysaan waaw maa ndeysaan mi ngi jël loxo ba teg ci taf ba di xaar di xaar message bi génnee taf bi pour tafal ko ko ndeysaan lamb la mënoon a demee noonu laa ma jaagi noonu nii la waroon jeexee ndeysaan waaye at bi baa ngi woote grand combat bi woo na grand combat nee na leen ñëw leen dugg si leen 1번, 1번, 1번 지금 어렵겠다. 어. ndeysaan mi ngi noonu combat social ba jeex noonu diggante usine ak abama usine technique dafa jël coup ndeysaan dem ar arbitre bi nekk mënootoo bërewaat ñu jox victoire muy abama yàlla ñu ngi tënkee ci. combat baa ngi noonu ñu woo leen ci biir géew bi. noonu arbitre yaa noonu ci biir géew bi. woote grand combat bi noonu la ñuy xaar. waaye ndeysaan di profité di nuyu waale Mbaye Mbaye Diop maa ngi lay nuyu di la bëggee borom Njàmbur maa ngi lay bëggee sama waa jooju jënd moom Mbaye borom suñu xalaat TV nee naa la suñu xalaat TV yaay borom yow la xale yi di topp Mbaye yàlla sa jaamu yàgg Mbaye bi. nee naa la koro bi nga nuyoo monsieur le maire euh, Ousmane Sakal Dieng ndeysaan mu la Mbaye Diop fay naa la dama kontaan wane na loolu nag mooy wane na ndeysaan sa liggéey mi ngi rafet Mbaye sa liggéey mi ngi rafet Mbaye yàlla yàlla yóbbu la fu kawe maa ngi bu baax a baax waaw maa ngi sant Serigne Touba wér a wér waay waay dama andi woon xeex laa bëggoon bëre waaw parce que bërekat laa amul lu ma amul ci làmb mbapat aren maa ko daa ko bëree fuuf te champion champion moo koy daan moom bu dee champion man champion laa man amul lu ma deful ci mbapat te xale bu ndaw laa amaguma 30 ans lu ne laa jël ci làmb boo demee fi sam dëkk samay nag yëpp ngi foofu maa ngi dëkk Ngaparu waaw maa ngi gërëm waa Kër Moussa ci kaw laa bëgg kuñ ma jox ma bëre ak moom barke sëñ Fallou oh nañ ñëw maa ngi sant waa Ngaparou gépp aw ma seen fay Petite Côte bi yëpp di sant waa Kër Mousso ah suñ tête de file bal Balde mu ngi nii suñu gis sañ ginnaaw xam nga jàppale ñu ci entraînement yi daam jóob a ah, xam nga ak képp koo xam ne nii jàppale nga Obama rek maa ngi lay bëggee bu baax di la ziare waa di bëggee di sant tullu jandeer wi yëpp ak yaroo baax sama doomu nday Pythagore 2 ah caat ñooñu ñëpp maa ngi leen woo barke sëñ Fallou ay jàmbaar lañ. merci beaucoup. waaw incha allah di leen ñaanal nag yéen yàlla dem ba may leen ay télé waaw yu mag ngeen jiite ko incha allah waaw yàlla na ko yàlla def barke yoon bi sedd sol yére dafa sedd. sedd bi nee la ñun ñu sol yére sax ñu ngi bëgg a dee. nee naa la ñun ñu sol yére sax ñun ñu sol yére sax ñu noonu pare pare grand combat bi mooy dugg ci noonu

xel bi day daal di wéer dama ne yow ngay borom tëjee kii quoi tamit ma yàqal li ngeen di bay bay li ngeen di foyee ma maa ngi liggéey bu waay waaw dama ne Petit Baye Fall journaliste yi man Petit Baye Fall mbëru yàlla bi waxal ci man ba pare waxal ci sa buur gi ñoo dëkk maa yow maa ñëw si yow Petit bu du la rëcc de barki ñu la delloo ziar yaa booy sant yàlla gërëm ko Petit Baye Fall boobu léegi treize combats dans les sénégalais mënoo fexe ba bëre. eh duguma ci ruq bi de maa ci ginnaaw ruq bi. maa ci ginnaaw ruq bi laa la wax. waaw maa ngi ñëw stade chaque jour. combat taxawul stade promoteur xam nañu taxawale combat yi mbëri maa dégg ñuy yuuxu boobu léegi Talfa. Talfa amul combat moom nee na gémeur la. na ma jël man man man Petit Baye man maa bëgg mu ma barki mu xam ma dëgg Rasulullah ma géem ko ba géem barki Muhammadu Rasulullah eh Talfa eh man Petit Baye Fall numéro un pare naa pour sa avance soo bëggee bëgg naa. su ma ko teg ci mun a bëre raw ko si làmb treize combats la am moom cinq combats la am man moom treize combats dix victoire ak trois défaites. ah budul Talfa. mais booy yeneen booy yaa si làmb ji ñaxa jër jëriñu dañoo ñu bëre maanaam moom combat la dafa daanu. ñax a jëriñu ma ne dafa daanu. léegi ginnaaw saako yi moo la may dama bokk si làmb ndeysaan xam nga la ma lu ma manqué. média barki mu Muhammadu Rasul génn si média yi nii dama si génn lu bëri quoi parce que ñoo gisee nii man jaanu ñàngoor laa maa ngi sama ruux rek tëdd ba doo dégg loolu jaanu ñàngoor laa barki mu Muhammadu Rasul laa eh dama war a bëri dama bokk si làmb escorpion laa ma ñu daan escorpion moo daan sa technique ma jël ko daan ko fii le 23 juillet passé laa ko daan fii Tëngéej grand combat man damaa bokk si laan ma war a bëree. Mata Ndiaye mooy sa manager moo gën a bon si manager yi Mata Ndiaye yaa ngi may dégg li may wax nii ragal ma ko de yaa gën a bon si manager sama gën a bëri sama damay bëree yaa ngi may dégg làmb amul ku ba am ndey ku ba amul ndey ñu dañoo bokk si làmb barki mu xamu du rasulilaay ay xale lañ làmb yaakaar ñu dañuy mobilisé la mañ teree bëre loolu du loolu. est-ce que kenn doxul koy dox waaye ay mbëri sàmmante la nga yu kenn xamul ay mbëri feebar yooyu man dama bëgg am tur laa bëgg ya booy ay booy gerte gi yooyu la ay baaba jaxal ñoom may na sax ñoo daanu bay ba léegi garaaw bu ñëwee may na sax xam nga laa gën a bëgg talfa yow laay wax talfa yooyu ma la fees la am dañuy xeex ma la fees la am barki mu xamadu rasul ak talfa sëñ Fallo mbëri yàlla bàyyi nii bëri bàyyi fa xanaa doo dégg ceedo bi ñëw leen maa ngi xaar tënkee. maa ngi fay si waaw waaw waaw Tëngéej. Tëngéej a ngi real góor. ñu leen dalal jàmm bu baax a baax. gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yoonam sant suñu waajur sant waa Tëngéej bu baax a baax a baax. waa Merina Thiaw leen Mengo Bédé Këri Kaw Këri Suuf Arafat Jaloore waa Grand Mbaaw waa Petit Mbaaw xam nga waa caaro yi maa ngi leen bëgg di leen bëgg bu baax a baax bëgg seen bu baax. Mm-hmm. merci beaucoup fu ma jëm fii laa bëgg a gars jox ma fi grand combat fii ma feesal ko del fii man maa ko mën a feesal billaay wallaay tallaay man maa ko mën a feesal ku ma am baax na ku ma am baax na Ziza bu bëggee na ñëw ñu bëre incha allah Ziza waaw moom laa bëgg ñu bëre na ñëw ñu bëre moom nañ ko jox avance ak mu ñëw bëre si wàllu mobilisation yëpp baal naa ko ko bu ñëwee ñu day dalal ko bu baax a baax a baax du stade fii yëpp dama koy diw tribune ñi yëpp dama koy diw billaay wallaay tallaay man maay borom Tëngéej doomu dëkk baa ngi de Saliya xam na li may wax xam na lu baax li may wax mais ñu may contacter bu baax a baax di ma wax fii sax grand combat mag Ziza mais instant su moom la des quoi mais grand jëlëb combat bi ñu bëre ah. baax. waaw sori nañ ci démarche bu baax a baax a baax instant si moom la dese si wàllum kase ak yooyu noonu mais bu buggee moom mën naa ko doole sama kase ñu bëre amul benn problème. pare naa pour looru parce que gars yi ñoo ma koy laaj quoi samuraay nee na faa ma ñëw fii te loolu par bu ma bëree rek ñoom ñoo tax kon liñ bëgg dama leen koy defal incha allah waaw. dinañ jaajëfal bu baax a baax di ñaanal suñu grand bi ndam bu baax a baax. roog jëlal li yow roog yow yow otes yi ba loolu yoon la. ah lu tàng la wala. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi diggante amul frein ak Papa Dji Sané cey cey waa Tëngéej man daal waa Tëngéej xam naa ne moom tey ñëw doxu si fii dëgg si fii ñun tey ñoo jaay suñu suñu kër yi ñëw ñoo doxu si Tëngéej cey ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew bi diggante amul frein ndeysaan ngeen di seen waaye Gabathie Sané ngeen noonu ngeen seen ndeysaan moom tamit nee naa la ñaari mbër yëpp a ngi ci biir géew bi boobee waaye ndeysaan nee naa tey Sénégal dañoo yeewu wàll ak tiis suñu yaay Kiné Diaga di ko ñaanal yàlla yërëm ko di wajur bu jigéen di Wally Ballago Seck di ko ñaanal yàlla yërëm ko xara ko ci àjjana firdawsi ya mook suñu papa jooju papa coon ndeysaan nee naa dee du jaas lu dund dina dee waaye ndeysaan gën a bees rek moo fi am kon suñu yaay Kiné Diaga ñu ngi koy jaale askanu Sénégal yëpp ndeysaan di ko jaale Wally Ballago Seck ak képp koo xam ne mbokkam la ñu koy jaale di ñaan yàlla yàlla yëru ko ta xare ko ci àjjana yi fii da saane ndeysaan mi ngi noonu ñaari mbër yaa noonu ci biir géew bi ay gamo ji pare na moom amul frein moo des mi ngi noonu nekk ay dernier réglage am mi ngi noonu noonu arbitre bi wax règlement yi lim nangook lim bañ ci fooy fana ndeysaan dafa leer arbitre baa ngi di waaye si la ndeysaan di leen wax règlement yi lim nangoog lim bañ arbitre bi si la ndeysaan seen diggante diggante amul frein ak Kamathou Sané Kamathou Sané moom ngeen jàkkaar attention amul frein moo leen wan ginnaaw waaye Kamathou cokkaas na léegi ne ko ñaari poids yi tolloowuñu jigéen de amul frein waaye Kamathou mi ngi def ay latéral déplacement poids lourd noonu moom attention eh kaawoon na tuuse na ko ba du ko dool mu daanu takk na ko laa ilaaha illallaah daanu ko doole doxul jàmm doole doxul jàmm eh doole doxul jàmm doole doxul jàmm laa ilaaha illallaah amul frein amul frein moom amul frein amul frein amul frein de amul frein de frein ne wut day dem rek cey amul frein ndeysaan amul frein lamb ji jeex na amul frein ndeysaan mi ngi noonu laamu ji jeex na diggante Gamadiou Sané ndeysaan salaamaaleykum maa leen nuyu ñu ngi sant bu wér gërëm yàlla kay palmarès rek ah ci gars yi rek fi mu toll nii keroog keroog mu bëre ba léegi mun maa fexe ba war combat te xam yoon maag boo jawaas waaw Thiès la 10 le 10 bi passé waaw ma daan ko jëlee bu gaaw na ma gars ñu bëre ay booy plateau man ak ñoom combat la barke alxuraan waaw ñu ne combat la boo yëpp buñ mën nangoo jël combat la barki barki Seydina Mohamed boo yooyee du ma ak ñoom dama bëgg a jël lii pour lancer sama bopp rek mais boo yooyu buñ ma jëlee du ma ñoom barki alxuraan man ni may waxee noonu laay bëree nest barki alxuraan kereem tund jaay lañ dëkk ñun buñ jógee ñëpp dañ ñuy topp dañuy mobiliser wu gis bi passé li ma yóbbu Cees la 10 bi passé gis nga man damay mobiliser damay bëri dama samay combat du yàgg barki alxuraan bare naa kay pour ñëpp mais booy balaatoo bu ma ñëwee jël ma billaay ma daan ko jël bu gaaw non du question daanu sax même sekk ndaaraan boo yooyu yëpp mën ak ñoom combat la alxuraan karim ñun dañoo war a bëre ñun waruñoo entraîné rek toog chaque jour ñu ngi suñuy entraînement liggéeyuñ dara ndax làmb a jël may ñu sax ñun ñu bëre dem suñu yoon ah non fi mu toll nii moom promoteur ñu ngi may wax mais mbëri may cité ñoom la arrangé wul parce que ñoom dañoo bëgg ma duggaat Thiès bëre mais man Dakar laa bëgg dugg incha allah non xam nga Thiès man Thiès dañoo dafa nekk dëkk boo xam te ni maam boo fi bëre di bëre bëre pour nga gaaw am tour du yomb mooy loolu mais dañoo bëgg ñu dugg Dakar ñu dugal ñu Dakar pour ñu mën a am teel am tour parce que ñun làmb mooy suñu métier barke alxuraan waaw maa leen di jaajëfal bu baax a baax incha allah yow na jàmm. Merci.